de bu bees dafa am jàppalwaay balaa mooy ñëw dafa am ñaari nit yoo xam ni ñi ngi tax ma lay jàppale te musuma la gis xaw ma sa kër xaw ma sa numéro téléphone muy jëmm du baax ci barke alquran karim maa ngi lay waatal ci yonent bi naru ma woon feeñ ba faaw ndax su ma ñëwoon xam naa ni naa fi fekk kii ak Eli Mbaye Eli gars li may wax dama bëgg nga dégg muy benn beneen bi ci topp mooy madame Thiam bi muy tubb école Nafoore cité avion man la ko joxoon maak Habib tout ce qui culturel man maa ko fa yoroon ndomba tànk yàgg na ci yow parce que lii wolof Njaay di wax ne da ngaa juddu rek necca nekk responsable parce que xiif ak suur ci sa biiru yaay la lay fekk man du ma sa géwél du ma sa fan du ma sa morom waaye ñëwuma pour jàppale la damaa ñëw pour jàpp ci li ma moom parce que intérêt askan wi nga gis nga ku suur moo neex a denk ci suur moo gis nga jox leen ma jox leen ma ji yëpp nii li ngay def nii bu ko xeeb de proximité ay miti nag ay joxe xaalis ak yooyu yëpp askan wi xoolatuñu ko seen carte ñu ñuy dugal seen poos xool ki leen doy ñu fal pal bu njëkk ba nag déglul bu baax li ma la pal bu njëkk ba carte la ba ca topp jikko lay doon te sa jikko rafet na say waajur liggéey nañ ko ci diine ji d'abord ci diine ji d'abord ci diine ji d'abord ci aada ji ak ci cosaan foo dem fekk sa ay waajur barke alxuraanu karim ay ndombo tànk lañ am ci réew mi elle fii moo directrice ba ma nekkee ba ma nekkee war elle fii moo directrice musuma xamoon lu ñàkk fayda tey bu la wokkoon tey ne la Lamine Samba ngi nii bu ko bu ko recevoir wala bul taxaw doo taxaw foo ne danaa ca loolu laal danaa laal maa ngi yow bëgg a dugg biir mairie. rip benn wala muy benn beneen bi ci topp mooy mooy ñaar ñii mooy ñaar ñii xam nga léegi Sénégal. bilaay def lu baax daf fee daf fee xaw a tumuraan xamul tax soo loo wax rek ñu ne dóor loo wax rek ñu ne dóor man fonctionnaire la maa ngi liggéey star bi gën a ci àdduna aw maa ngi moom photo Youssou aw maa ngi moom photo parce que du sama mais barki alxuraan dama lay jàppale ndax ñaar ñii kii kii day xëy sax woo ma ne ma lan ak lan ak lan man nag damay bàyyi ba mu des cinq jours loo dugg ma dugg fa loo ne ma ne ca boo duggee ci benn mairie ba ma dellu sama liggéey yàlla na la ko yàlla jox yal na la yàlla may ndam sama xol laa ko tibbee barke sëñ Babacar Si xam nga ci muti waxoon naa la yal na la yàlla may ndam yal na la sa barke bàyyi wallu yal na la sa barke bàyyi ca àjjana yal na la wallu yal na la wallu càmm dem ak boo